أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey noo ngi ci suratul maida bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël ñetti aaya aaya 54 55 56 ñetti aaya yi nekk sunu kanam liñ ciy jëlee comme ay njàng ak mbind bi ci juróom lay doon bi ci njëkk mooy ixbaarul quraanul karim bil xaybi fa sadaqa fi zalik fa kaana aaya annahu kalaamullah bokk na ci li ñuy jàng tey mooy xabaar gi nga xam ne alquran téere bii di sunu téere boroom di kàddoom wax na ko kumpa luy ñëw ëllëg loolu daa di am bu fekkente ne nag loolu am na alquran ne dara dina am ca jamono yam koy wax amul ñu toog ay waxtu toog ay weer toog ay at gis ko li muy tekki mooy dëgg-dëgg kon alquran waxu yàlla la alquran kéemtaan la ndax wax na loo xam ne dina nekk mu daal di nekk te jam ko jamono jam koy wax amul woon ñaareel mooy fadilatu abi bakar wa sahaaba danañ jàng tey ngëneelu sahaaba bu mag bii di abu bakrin ak sahaaba yi nga xam ne ñoo waroon yonent bi rawatina ñooñ ñuy wax al ashariyin te abu musa bokk te boroom xam-xam yi wax ne ñoom ñoom waa yaman lañ danañ jàng tey ñoom it seen ngëneel gi yàlla subhanahu wa taala def ci ñoom ñoom sahaaba yooyu nga xam ne ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam danañ jàng tey mbokk yi ngëneelu bëgg yàlla ak suufe suufelu way gëm yàlla yi yërmande gi nga xam ne moom lañu yërëmante ñoom jullit yi ak saxaaba ya waaye danañ jàng ñoom saxaaba yi nañu tare woon ci kaw yéeféer yi musuñu mbokk ak yéeféer war ñu xaritoog moom waaye danañ jàng tey ngëneelu jihaad ci yoonu yàlla ngir kaweel kàddu yàlla ngir yëkkati dëgg danañ jàng tey ci sunu darsi aaya yi wax dëgg ak sax ci bañ cee ragal kenn bañ cee xaar ku la yedd wala ku la ŋàññ wala ku la sikk danañ jàng ngëneelu julli joxe azaka toroxlu ak suufe suufelu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala danañ jàng tey juróomeelu tomb bi mooy wilaayatullahi wa rasulihi farag yàlla ak yonentam ak way gëm yàlla ñi dëgguña la muy jural boroomam mooy ndimbal ak ku mu dajeel ku mu mën a doon mu noot ko ci kàddu yàlla tabaraka wa taala wala mu noot ko ci kàttanam kon suñ koy tënk tënk bu gaaw danañ gis tey ngëneelu aaya yi nuy jàng juróom kese la alquran wax nañu kumpa mu ñëw muy dëgg danañ jàng ngëneelu saxaaba yi danañ jàng ngëneelu bëgg yàlla danañ jàng ngëneelu julli ak azaka ak la ca nekk danañ jàng far ak borom bi tabaraka wa taala ak yonentam li muy waralal ab jullit te mooy ndimbal fu mu nekk ak gañe lii mooy aaya yi ñuy jàng tey mu nekk ñetti aaya sunu borom subhanahu wa taala dinu ko jàngal ci suratul maida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi dañul nin ko baaxoo di wax di ñu jàngal aaya yi ak yoon yi te mooy àtte yi ak luwaay yi semaine bi nu nekk lépp alquran mu ngi ñuy jàngal ay yoon ay loi ay àtte li ñuy gën a leeral rek téere bi du téere barkeelu kese kese kese waaye téere bi dafa ëmb ay yoon ay àtte yoo xam ne yàlla da koy wàcce ci jullit yi pour ñu jëfe ko dund ko mu nekk foo xam ne loo xam ne day tax ñu xam fu ñu teg seen tànk gis nga démb yaa ayyuha allazina amanu la woon tayit yaa ayyuha allazina amanu borom bee delluwaat rek di woote waat ñi mu naan ñi mu daan woo rek ñoom la woowat mooy way gëm yàlla yi ñi nga xam ne ñoo ne ñoom ay jullit lën gëm nañu yàlla borom bi ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm man yartadda minkum képp ku murtat ci yéen bàyyi diine dellu ci kéeféer ginnaaw ba mu gëmee yàlla man yartadda képp ku murtat minkum ci yéen an diinihi ci diineem bàyyi diine islaam dem nekk ab yéeféer comme ni ko ñenn ñi di defe tey ndax ay intérêt ak ay ndomba tànk wala ay pos wala wala wala wala tax tey nga gis ab jullit mu d mu daal di bàyyi lislaam tànn ab kéefér tey li ñuy jàng mooy atteg ku bàyyi islaam fal murtad du murtad mooy lan kan mooy ku murtad mu ne ci sharia ki murtad mooy ki nga xam ne dafa weddi islaam ba nekk jullit ba mu neex ko mu daal ciy génn la ko ci génn nag moom moo ko xam moom ma ca génn waaye léeg-léeg di nga gis li ma wax léegi ay intérêt ay ndomba tànk ay pos ay taraanga ay ay ay ay ay tax ab jullit daal di murtad bàyyi islaam waaye kooku fuqaha yi boroom xam-xam yi ñu ne mooy kan walladi yakfuru baada islaamihi mooy koo xam ne dafa weddi ginnaaw ngëmam ginnaaw islaamam moo tax wa sumiya murtaddan ñu daal di koy tuddee ku murtad li anna ridda lugatan hiya rujuu an shay ndax murtad ci làkku arab mooy dellu ci mbir nekk ci mbir ba caa nga génn ci dem ci leneen loolu mooy al murtad ci lugatul arab ar ruju an shay dellu ci dara da ngaa nekkoon ci mbir mi ba caa nga génn ci dellu ci ginnaaw fa man kafara baada ismaai islaamihi faqad rajaa an il islaami fa huwa murtaddun képp koo xam ne da ngaa nekk ci lislaam ba mu soob la neex la nga daal ci deltu ginnaaw génn ci yow da ngaa murtad su boobaa nag am na lu islaam jàngale ci yow bu dee dëkk ba nga nekk dëkku lislaam la bu dee sharia fay dox bu dee yoon wi yàlla yoonal ci kaw nit ñi mooy dox ca dëkk ba yow am na lu sharia teg sa kaw na wa yulzam al murtad kullu kafirin التوبة إلى الله تعالى والدخول في الإسلام من جديد mbokki jullit yi noo ngi jàng tey tomb bu doy waar tomb boo xam ne nit ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax ndax léeg-léeg nit dina wax wax rek daal di génn ci islaam daal di murtad te benn baat dong lay wax léeg-léeg nit dina jëf-jëf joo xam ne day murtad day génn ci lislaam kon su fekkee yenn saa yi nit wax wax joo xam ne daf koy génne ci lislaam wala nit jëf-jëf joo xam ne daf koy génne ci lislaam kon dana jaadu ñu xam lu nuy wax dana jaadu ñu xam lu ñuy jëf dana jaadu ñu xam yan wax mooy génne nit ci lislaam dana jaadu ñu xam yan jëf mooy génne nit ci lislaam te nit bu génnee ci lislaam rek alku na adunaam yàqu na àllaaxiraam yàqu na ak taraanga bu mu mën a am ci àdduna ak ndomba tànk bu mu mën a takk soo génnee ci lislaam yàqu nga ndeysaan allahu akbar fan yi passé dañ doon baas benn baas am koo xam ne daal tëdd ay trois heures rek dafa liggéey ba sonn ndeysaan mu tëdd trois heures gaa yi di ko yee xëdd nag mu defe ne xëdd bi daa paase ñu ne ko diw diw diw jógal mu ne woy yàqu naa mbaa xëdduñu ba pare gaa yi ne ko di ñàkk xëdd kay kenn du ci yàqu mu ne woy yàqu naa gaa yi ne ko déet lu xew mu ne da ngeen xëdd ba pare ñu ne ko xëdd tax ñu lay yee mu ne alhamdulilah rabbil alamin loolu ah ah ok ndeysaan yii mi ne de kon li yàq nit lay du loolu li yàq li yàqu nit mooy génn ci islaam kooko yàq àdduna yàqu àllaaxira ndax dootoo jagati li lay teree dugg safara mooy nga dee mbokk yi dana war ci ki nga xam ne dafa murtad génn ci islaam ak képp koo xam ne kéeféer la yéeféer la ñaar ñooñu li war ci ñoom li islaam yoonal ci ñoom mooy at tawba ilallah tuub delluwaat ci yàlla képp koo xam ne da ngaa wax wax ju la génne ci islaam comme théâtre bee passé semaine ba ngeen doon déglu ah waajooju defoon ko li ko war mooy nit ñi ne ko da ngaa war a tuub parce que dafa génn ci lislaam waaw fekkee am nay mbokkam yu ko jege wala xam ngeen ko wala yor ngeen numéro am ngeen ko war a woo ne ko tuubal dellul ci yàlla képp koo xam ne da ngaa murtat nga war a tuub képp koo xam ne yéeféer nga da ngaa war a tuub waaw loolu moo la war nga delluwaat ci islaam delluwaat bu bees min jadid da ngay beesalaat parce que sa islaam yàqu na ni mu amee ay mbir yoo xam ne ku ko def sa njàpp yàqu am ay mbir yoo xam ne ku ko def sa julli yàqu am ay mbir yoo xam ne ku ko def sa aj yàqu noonu la amee ay mbir yoo xam ne ku ko def sa islaam yàqu na islaam day yàqu de ne njàpp di toje aj di yàqoo koor di yàqu julli di yàqu nga xam ne da nga koy defaraat noonu la islaamu nit di yàqoo ci wax ak jëf boo xam ne nit daf koy def kon mbokk jullit yi mu ne waa jooju nga xam ne wala yéeféer boobu nga xam ne dafa war a tuub fa in taaba taaba allahu alayhi su fekkee tuub na yàlla nangu tuubam loolu yàlla nga ko wax ci suratul anfal aaya fanweer ak juróom-ñett 38 borom bi ne qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf borom bi nee na neel yéeféer yi yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ak yéeféer yi sunu daytaloo bàyyi seeni wax yi ñuy wax islaam ak seeni jëf yi ñuy jëf yàlla jéggal leen lu paase la ñu daan def gis nga kon ndeke ki nga xam ne day jalgati di wax ay mbir yoo xam ne jaaduwut wala mu koy jëf balaa islaam di ko baal foog mu daytalu foog mu arrêté ci jëf yooyu muy jëf ak wax yooyu muy wax su ko defee yàlla nee na dinaa ko baal lépp loo xam ne paase woon na ko lépp loo xam ne defoon na ko waaye ci islaam buñ la nee tuubal nga lànk tuubuma li ma wax maa ci jël sama responsabilité dama koy assumer li ma wax ci laa nekk duma ci deñ duma ci deltu ginnaaw fa in lam yatub su lànkee fa innahu yuqtal dañ koy rey a gis ngeen ku murtad dan lay rey li ma leen wan ne islaam téere bi di alquran yoon la luwaa la luwaa la bu ñu war a teg di ko atte wo nii tey ñuy dawee ci ginnaaw laïcité bu bon bu xaraam bi nga xam ne moom nu tere nekk ay jullit gëm ko def ko constitution di ko dunde ndeke alxuraan moo ci yay ñun alxuraan mooy sunu constitution alxuraan moom moo ñëw nekk téere boo xam ne moom la yàlla teg sunu kanam ñu war koo jëfee ci sunu dund biir ak biti barki démb ba léegi wala semaine bi nu nekk lépp li ñuy jàng xam nga ne yépp ay yoon la ku def nangam ku agresseur sàcc ku njaaloo ah ku lan démb lan lan doon jàng démb lu doon jàng ah dégguma dara de képp ku bàyyi yàlla dem ali démb alliance lañ doon jàng far alwala lañ doon jàng piété alwala wal bara démb loolu lañ doon jàng tey lan lañ jàng ku murtat ku génn ci islam gis ngeen téere bi ay yoon la léegi nag jullit ñi bu ñu xamul yoon yooyu lu muy tekki waaye dañuy mut dañuy dem rek def lu ñu neex moo tax dëkk bi nga gis nit ñëpp dañoo murtat genn wàllu dëkk bi ñëpp a murtat fii bu ñu doon rey ñu bëri rey nan leen parce que xamuñ ci ay wax ay jëf da ngay gis koo xam ne subhanallah sa yaram day daw waaye xamuñ xamuñu ne lii ku ko def da ngay génn ci lislaam loola tax ñooñu tamit nga xam ne dañuy def te kenn du xam ñoom xam nañ wala xamuñu lan la islaam àtte ci ñoom mbokk yi kon islaam dafa rey koo xam ne dafa murtad yooxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la te hadis boo xam ne buxaari moo ko soloo sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na man baddala diinahu faqtuluhu ku bàyyi diineem changé ko rey leen ko ku bàyyi diineem changé ko nekk ci islam ba mu neex la nga ne man génn naa ci lislaam léegi nangam laa ab yahud laa wala ab nasaraan laa wala dama ate wala islam dafay sonalaate julli naa bay bëgg a dee comme waa ji li mu wax keroog ci théâtre bi ñu lay jullil di la wooral di la taggal sab yonent nga ñuy faat loolu ku ko wax rek génn nga ci lislaam da ngaa murtad li war ci yow mooy ñu tuubalaat la soo nangoo tuub ñu bala soo bañee lan lay rey même boroom xam-xam yi wax nañ ñaata fan lan lay tuubloo mu ne waqad basatat kutubul fiqi al islami al kalaam xawla al murtad wa ahkaami ridda wal masail al mutaalliqa biha mislu al masala istitaabati al murtad mu ne téere yi di xam ne mooy téere mooy téere yi jàngale sharia téere yi jàngale diine di firi alquran ak sunna yonent wax nañ wax yu bare bari ci ay atte ku murtad ak lan mooy atteem ku génn ci lislaam indi nañ ay masala yoo xam ne dafa aju ci atte boobu comme dañ ko war a tuubloo moom moomu nga xam ne dafa murtad ñu ne ndax tuubloo ko dafa war wala ndax dañ koo sopp waxal imhaala salaasat ayaam wala ndax dañ koy bàyyi ñetti fan yoo xam ne dafa war wala dañ koo sopp wa bi ma tasbutu ridda ak murtat naka lay saxee lan la nit di def lan la nit di wax ba ñu àttale na yow da ngaa murtat wa bi ma taxaw kañ la nit di murtad wa kayfa takunu naka lay nekkee tawbatul murtad yëpp téere yi wax nañ ko téere yi jàngale nañ ndax murtad tuubloo ko dañ koo sopp wala farata la téere yi jàngale nañ ñaata fan lañ ko war a bàyyi moom moomu murtad téere yi jàngale nañ kañ la murtad ñu koy atte ku murtad naka lay nekkee ku murtad kañ la koy nekk tuubam nu muy demee wa gayru zalik ak yeneen min al masail ci ay làcce yoo xamante ne boroom xam-xam yi yal nanu leen yàlla fayal jàngal nanu atte waa ji nga xam ne moom mooy ku murtad sax na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne laa yahillu damu mri muslim illa bi ihdi salaasa sayibu zani wa nafsu bin nafs wa taariku li diinihi almufaariqa lil jamaa rawahu buxaari wa muslim sallallahu alayhi wa sallam ne daganul deretu ab jullit dereetub jullit daganul ñu tuur ko lu dul ci ñetti mbir jullit bu defee ñetti mbir rek dagan nañu rey ko bu ci njëkk mooy màgget muy njaaloo borom bi jaaw bu weex tal njaaloo dañ ko war a rey wa nafs bi nafs ku rey nit dañ laa war a rey wa taariku li diinihi ku bàyyi sa diine génn ci mbooloo mi almufaariqa lil jamaa génn ci mbooloo islaam dañ laa war a rey buxaari moo ko solo ak muslim kon leer na attey ku murtad lan mooy atteem ci islaam mooy dañ ko war a rey waaye bala ñu koy rey am na fu ñu war a jaar ak moom wa lihaza wa li hadihi al adilla wa gayriha ajmaa al muslimuna qadiman wa hadisan ala uqubati al murtad loola tax mbokk yi ñëw na ci ay dalil yu sax mboolem jullit ñi ànd ci démb ak tey suñ ne démb kañ la luñ ci bëgg a wax mooy ca jamono saxaaba ya ba fii nu toog mboolem borom xam-xam yi fi jaar lanu saxal mooy ku murtad dan lay mbugal waaw wa jumhuruhum bi ma fihim al mazahib al arbaa mboolem jumhur suñ ne jumhurul ulama xam ngeen ne l'islam dafa am ay source islam ñetti atte la bi ci njëkk mooy alquran su nit defee dara suñ lay atte fu ñuy njëkk a dem balaa ñuy xool lu sàmba wax wala demba fu ñuy njëkk a dem ci li yàlla wax suñ ko xoolee gisuñu ko ci ñu ñëw ci waxu yonent bi muy hadis suñ ko xoolee gisuñu ko ñu ñëw ci jumhur mooy lan la ci borom xam-xam yi wax ci waa ji lim def mu ne ci jumhur yooyu bokk na ci al mazhab al mazahib al arbaa mooy borom ñeenti ngir yi abu hanifa malik shafii ak ahmad ñoom ñëpp ñu ne annaha al qatl li war ci ku murtat mooy dañ laa war a rey gis ngeen kon alquran dafa ne dañ la war a rey sunna yonent bi ne dañ la war a rey jumhur ne dañ la war a rey mazahibul arbaa ne dan la war a rey li sarixil ahadis an nabawiya ndax lan hadis yi dañoo leer nañ ne dañ la war a rey walakin waaye al hukmu ala al murtad la yakunu illa min qibali al qada al shar'i atte waa jooju nga xam ne dafa murtad génn ci islaam du nekk lu dul ginnaaw bañ ko àttee ci sharia sharia mooy àtte ne waa ji dafa murtad léegi nag bu sharia àttee ne waa ji dafa murtad kan mooy exécuter rey bi man yow yéen ñun déedéet wa tanfiz la yakunu illa min qibali waliyi lmuslimin ki jiite jullit ñi kilifay jullit ñi ki nga xam ne mooy amir ah moo fi toogal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku moom mooy exécuté nag léegi loi bi ci kawam wala yajuusu alhukmu ala saxs muayyan bi ridda du dagan nun ñi ñu xool ku nu neex rek ne la yow mi murtad nga yow mi dañ laa war a rey waaw du dagan ci ñun sharia mooy xool waa ji ne ko yow dafa murtad mu ngoog su ko defee ñu daal di exécuter ci moom moom mi nga xam ne dafa murtad ñu daal di wàcce ci kawam àtte bi yoon wi loi bi ñu daal di koy wàcce ci kawam mbokk yi kenn du àtte nit ku murtad lu dul charte yi daje ci moom waaw lu dul ñu daal di koy dindil kiiraay yi nga xam ne moo ko kiir saa ñu demee nag ba àtte yi charte yëpp daal di mat ci waa ji lépp daal di yemb yajibu alal waliyil amr an yunaffiza al xukmu li war ci ki nga xam ne moom moo méngoo mbiru jullit ñi moo yor mbiru jullit ñi mooy àtte mooy dogal mu daal di àtte ci kaw waa jooju nga xam ne dafa murtad lii nag ci mboolem jamono yi la fi ay asrin kaana wa fi ay masrin kaana gox bu nekk jamono ju nekk la fa war mooy ka fa toogal jullit ñi di atte atte yàlla ci kaw jullit ñi waaye lii yëpp balaa muy am bëgg nañu waa ji nga xam ne dafa murtat al istitaaba salaasati ayaamin ñu tuubloo ko ñetti fan ñetti fan yoo xam ne buñ koy tuubloo dañ koy toggal ganaar wala yàpp boole ko taraanga gu rëy di ko ko indil fañ ko denc waaw muy lekk di naan lu neex di lekk ñu naan ko waaw tuubal ñuy wax ak moom di ko yedd pour mu delsi du koy defal ay taraanga pour mu tuub waaw ndeysaan lislaam mooy dëgg xoola rek ku ñu war a rey ñu ne nañ lay indil ay ginaar rek nañ lay indil ay brochette rek ah ay bioche d'or rek ay jus ak fruits waxtaan ak yow ah loolu fan ngeen ko gis ci àdduna bi ndeysaan mu ne nañ jéem wa muhawalati iqnaa yi nañ jéem convaincre ko neexal ko na dellu siwaat bi ruju ila al islam waaw su fekkee dañu ko gars yi dañoo ñëw rek yëy bopp bi ay waxi kese lañ ko tuur théorie ko ah comme ni ñoom philosophie di def ni yenn prof yi di def booy lycée yi ah boo demee ñu lay jéem a gëmloo ne yàlla amul di jéem a naan sa yuur yi su fekkee ne loolu la dajeel nit ñu mel noonu la dajeel ba ñu naan xel mi ba mu génn ci lislaam su boobaa ne ñu ut ñu mel noonu ci lislaam ñooñu jéem ko convaincre jéem ko delloo siwaat xoolal li yëpp islam du ñëw rek rey gis nga chaque jour loolu la ñuy wax fii li garaaw mooy chaque jour bu ñu nee reer di yaakaar ne islam day ñëw ne reer rek mu jël jaasi na cër déedéet même sàcc bi sax bala ñuy dagg loxo bi dafa am fu ñu war a jaar ak moom lu tax mu sàcc contexte bi dañ koy xool ndax dëkk bi dafa am crise ndax nit ñi dañoo xiif ban problème moo am ci dëkk bi ah ba waa ji dem di sàcc kii tamit gis ngeen dañ koy booleeg ay nit ñuy jéem fexe ba convaincre ko ba mu génn ci ba mu delluwaat ci islaam bil jidaal billati hiya ahsan gis nga même bu ñuy discuter ak moom sax dañuy waxtaan ak moom waxtaan bu neex bu rafet kenn du ñëw rek ne ko xam nga boo tuubul dañ lay rey ñun soo gisee ñoo fi naan xolal dañuy kii rek de boo gis nga jaa si jaa ngi nii gaa yaa ngi koy daas déedéet ci mbirum xel mbirum xam-xam la ñuy waxtaanee ak moom ba convaincre ko fexe ba dindi as suba lënt lënt yi nekk ci bopp bi ba mu bàyyi lislaam lënt lënt yi son nañu seeti benn booy bu murtat jóge woon Dakar di dem Mauritanie ne day jàngi ah dem ba Rissa Tool rek Rosa Mauritanie xaw ma Rosa Sénégal benn la ci ñaari Rosa yi def fa escale daje fa ak témoin de Jéhovah yi xaw ma protestant yi gars yi daal di koy murtat loo mu ñibbisi Gunaas ñu wax ñu ko ñetti fan ñuy discuter ak moom du ñu nekk ba une heure ci guddi waaw pour mu génn ci lim nekk mais bi ñu demee ba xam ne commencé na recevoir salaire am ñun dañoo arrêté waaw ñu wax waa koñ ma nag def leen attention seen doom yi muy dajale daf leen di murtat loo parce que kii dafa murtat dafa génn ci islam bokk na ci lim ñu wax man damaa dem ñu jàngal ma convaincre ma ma daal di murtat ma génn ci islam ñu ne ko waaw balaa nga doon génn ndax yow jàngal islam da nga waroon jàng ñaar yëpp soo jàngoon l'islam ba géeju ci comme ni nga jànge lii ba géeju ci jox la ay livre nga liir ba ne kecc noonu nga waroon def ci islam da nga waroon jàng islam bi jàng alquran jàng sunna yonent bi ba mu jeex nga jàng téere fiq yi jàng téere siire yi après nag léegi nga gam-gam le mais yow benn côté bi nga dem jàng rek nga daal di murtat te dafa yomb ndeysaan du ma fàtte am na amoon naa xarit boo xam ne ñun ñett ñoo daan ànd ñett lañu woon
أذكار الصباح والمساء ñun ñett lañ daan nekk ñun ñett ñëpp Seydou lañ tudd Seydou Sow Seydou Wan Seydou Li ah ñoo doon rajaxi Guédiawaye ak Pikine ak Dakar ñun ñett waaw amul fu ndugul amul lu ñëwul woon def ci sunna ñett lañ nekkoon lii sa yëpp fii Dakar biir dëkk bi ah foo ñu gis ñun ñett ñooy ànd oto yi jumaa yi marché yi fépp dañuy bayaan Seydou Sow bu jàng alxuraan rek da ngay yaakaar ne imam Makka moo ñëw moo di moo moo ñëwaat Sénégal di jàng Seydou Seydou Sow Seydou euh, wan nag moom daa naan bible yi
سبحان الله bible yi la naan demoon na sa seize témoin de Jéhovah yi fii Géejawaay rajaxe ko ñu ne ko bu fi ñëwati bu fi ñëwati daf leen a daf leen a tremblé bible yi la naan gis nga ni Ahmed di daan mel noonu la mel dégg tubaab ba dof nag ñun ñett ñi ñun ñoo doon ànd suñ daan def conférence kii mooy jàng alxuraan Seydou Wane présider ko ma def conférence yi fii bëri na fii laa wax ci géejawaay ci kattanu yàlla wala Pikine wala Dakar gii wala ay caare kii malik malika bëri na fii ndaw lu dugalul ci sunna waaw bëri na de waaw ndeysaan kenn ki léegi daa tukki moo ngi Espagne kenn ki mu ngi hmm, wetu stade amitié cité yooyu nekk foofu fa la yor tahfiz quran loolu tax léegi sax génnatul moom ndax ja xale yi jàng lim leen di jàngal alquran mbokk yi kon murtada ngoog waaw qaala al allaama al xalil al maliki fi l muxtasar boroom xam-xam boobu di xalil al maliki nee na waa ji nga xam ne dafa murtad dañ koy yedd baal ko ñetti fan di wax ak di waxtaan ak moom bila juin wala atash ñetti fan yoo xam ne du xiif du mar mooy ñetti fan yi ma wax ne dañ koy neexal warul xiif warul mar lu mu bëgg gaa yi indil ko ah waaw fayin taaba bu fekkee tuub na ci ñetti fan yi gaa yi convaincre nañ ko borom xam-xam yi di dugg ku dugg rek génn keneen ñëw ku dugg génn keneen ñëw ñu koy waar ci waar wu neex wu rafet di ko yedd su ko defee alhamdulillah mu dellu si waat ñu bàyyi ko su bañee nag bu ñetti fan yi matee dan koo war a rey wax nañ aussi nun koy reyee wax nañ buñ ko reyee ba pare ndax war na ko jullee ndax war nañ ko sàng ndax war nañ koo sàng ndax imaam a ko war a jiite ak fan lañ ko war a suul mu ne wa zahaba baadu ahlil ilmi ila taajilihi bi duni haddin ma mu ne leen ci borom xam-xam yi wax nañ ne warunoo yàkkamti ci rey gun koy rey lu dul ñu utal ko benn dayo benn waxtu sëriñ bu me bu tudd cheikh al islam ibnu taymiya wax na ci téeréem bu tudd assaarimul masluul ne bu kenn gaawtu ci rey giñ koy rey wa qala sawri yuajjal ma rujjiyati tawba sawri nee na dañuy yàkkamte rey gi su fekkente ne bañ na ñetti fan ya mat na mu yéex a tuub mu ne haza hukmul murtad inda al jumhur al muslimin lii mooy atte ku murtad ci li ëpp ci mbooloo jullit yi li ñu wax mu ne faman sabatat riddatuhu an il islami wa tammat idanatuhu bi ilaanihi bi ridda faqad asbaha uduwan fasidan yajibu bi tardihi min jismi l mujtama képp koo xam ne dañoo dafa leer ci jullit yi ne yow da ngaa murtad da ngaa génn ci lislaam dañ laa identifié mu leer ñu xam ne yow mii la kon yow nekk nga tey benn nit benn membre bu bon ci biir mbooloo jullit ñi li war mooy ñu seppi la comme nu ñuy seppee pombiteer bu nëpp ci biir saaku bi sinon da ngay yàq société bi ndax ki nga xam ne dafa dem Europe wala mu dem quelque part ci àdduna bi wala mu dajeek ay nit ñu génn loo ko ci lislaam ba pare mu bëgg a ñëw ci biir jullit ñi di waaraati ki génn ci lislaam bu ñëwee ci jullit ñi lu muy def day génn nit ñi ci islam parce que la la la mu nekk lay bëgg a indi nit ñi moo tax ñu ne kii dañ ko war a identifier seppi ko génne ko ci islam ndax génn na ci islam dafay aar juróomi mbir daf lay wax ne juróom yi moomoo ko yooyu bi ci njëkk yooyu la ñuy wax al kulliyat ad daruriyat al xams juróomi mbir ci sa bopp moomoo ko bu kenn kin yaakaar ne juróom yooyu yaa ko moom soo ko bëggee yàq islam day téye ci sa loxo ne la doo ko yàq soo ko bëggee yàq mu nangu ko ci yow yooyu bi ci njëkk mooy ad diin soo bëggee yàq diine islam daf lay éliminer ndax diine mooy pas-pasu nit ñi su diine yàqoo rek nit ñi yàqu gis ngeen tey dal moo tax sénégalais yi mel nii nu mel ngeen defe ne ah diine bi leen yàq moo tax sénégalais yi mel nii diine dañ leen jox fo ñu ne diine la dinañ jàng suba billaahi wallaahi taalaahi suba dinañ jàng diine yi fo lan mooy diine suba dinañ ko jàng wax naa leen ne alxuraan du téere boo xam ne comme li xew fii léegi ci dëkk bi la wala ñu koy jàng rek am ku dee mukk semaine bi liñ jàng yëpp fan ngeen ci gis ku dee ki yàlla na ko yàlla yërëm liñ jàng semaine bi yëpp ay loi la ay àtte ñu ne waa ji diine su ko bëggee yàq dañ koy freiné ku bëggee yàq diine dañ lay rey ndax diine mooy tax nit ñi xam yàlla bu ci tegu an nafs sa bakkan boo bëggee yàq sa bopp ne da ngay naan sàngara maa moom sama bopp wala damay rey sama bopp déedéet dañuy téye ci sa loxo ne la amoo droit def ko waaw moo tax gis nga islaam araamal xaru puisque moomoo sa bopp amoo droit rey sa bopp wala ñu ne la boo xaroo rek safara nga jëm islam araamal ko tef gars yi sax dañuy wax ne ku xaru bu la imaam jullee ñett mooy an nasal njur mi kenn amul droit yàqu mooy planning familial moo tax kenn amul droit planning planification familiale dafa araam biir ak biti benn daganu ci waaw dama am doom ak damay xaw a maganteeg dañuy sutanteeg damay liyeg lépp a araam daganut ñaata lañ lim ñeenteel bi mooy xel amoo droit yàq sa xel moo tax lépp luy yàq xel ci islaam islaam araamal ko hmm? amoo droit jël loo xam ne day yàq sa xel gis nga islaam a ngi nii tere la nga rey sa bopp tere la nga yàq sa xel tere la nga yàq sa njaboot tere la nga yàq diine ban moo ci ban mooy juróomeel bi mooy almaal mooy alal ji alal ji sax doone maa ko moom maa ko liggéey dama koy dajale taal ko mu boo koy def ñu lay jàpp gis nga juróom yi islaam moo ko moom moomoo ko loo ci am lu mu bari bari bari bari moomoo ko soo ko bëggee yàq sharia day jàpp ci sa loxo jëfante ak yow gis ngeen li moo leen di wane diine ji ñu yor dafa ñëw pour lan pour defar àddina fii tey bu doon islam moo fi nekk doo gis mu kenn di dem Sorano di baatare naan nii di baatare mukk soo baataree ba pare sa waay dañ lay jëli ne la lii nga doon baatare foo ko jëlee waaw gis nga ah soo naanee sàngara nga màndi nekk ci mbedd yi di tarax tarax yi dañ lay jëfandikoo yow dañ lay jàpp dóor la juróom-ñett fukki yar soo reyee nit ñu rey la lii mooy lislaam suñu xamoon tey islaam li mu ñu indil kon ñun ñëpp doon nañu jaral tey nii nuy reyante ci laïcité dinañ reyante pour islam samp te ndeysaan dëkk yu mel ni ay Sénégal pour islam samp fi yomb na de yomb na bit bit jarul xuloo jarul xeex wala wala gis leen loolu ah pour islam samp fi ka yomb ñun ñaata lañ julli ni ñaata lañ waaw ñoo ñëpp buñ ne ñun islam la ñuy dund ku leen mënal dara ñoom ñëpp laa wax de bàyyiwuma kenn nag ñëpp suñ ne ñun l'islam la ñuy dund ku nu mënal dara moo tax am amunu lay ci kanamu yàlla ëllëg amunu lay amunu lay de waaw bu yeboonu góorgóorlu nag mbokk yi gis ngeen islam ni mu aare diine ji ba aar juróomi mbir yi nga xam ne mooy tax àdduna jag li tax àdduna jag mooy addiin an nafs an nasal al aql al maal yi islaam def ko aar kenn ci ñun amul droit yàq ko ak noo mën a mel wala yujadu mujtama fi dunya illa wa indahu asasiyat la yusmah bin nayli minha kenn du gis benn société ci kaw suuf ci àdduna bii nu nekk benn société lu dul société boobu am na ay mbir yoo xam ne yu fondamental ci société ba kenn du permettre kenn mu laal ko wala tey Sénégal am na loo xam ne kenn du permettre nit mu laal ko comme lan constitution bi wala nga keroog Abdoulaye Wade bi mu bëggee changé constitution bi assemblée bi gars yi dem di wote ji nu ñuy def ca gars yi génn ku nekk naan na tuus xaw ma lan ah waaw na tuus pas ama constitution gars yi di xaru biir assemblée ak a neexoon ñu ne na tuus pas ama religion ak a neexoon keroog saf na sàpp Dakar ba waa àllaaxira lañ jële ñuy régler problème yi keroog waa àllaaxira lañ jëli ñii dund munuñ ci dara ñi dee lañ dem yee leen ne leen kaay leen ngeen dimbali nu déggu leen li ma wax de ah comprendre nga góor gi keroog dañoo dem tegaat bànd ma Abdou Aziz Dabakh bi mu naan yéen ñi nekk ci assemblée bi ragal leen yàlla bul leen indalee ndeysaan gars yi daal di tiit daal di arrêté affaire bi fekk dëkk baa ngi jax dëkk baa ngi tàkk nit ñaa ngi blessé ñii ñu ngi leen di gaañ safara saa ngi koy foo tourné dégg dëkk baa ngi tàkk rajo yi ñëpp tiit ñu teg bande bi boobu ñuy dund mënuñ ci dara alaxira lañ dem yee ñu dee ñi kaay leen ngeen dimbali nu ndeysaan moo tax est ce que am na nu lay ci kanamu yàlla ëllëg ah bu fekkee ne ñun ñoo defoon loolu keroog ne kenn du laal constitution bi ndax lan ndax sa waay dafay bëgg a teg doomam kenn du ko nangu jaral ay nit ñu lakk seeni kër ñii ñu lakk assemblée bi ñu lakk oto yi gaañ ay nit blessé leen est-ce que rey ñu ci nit sax amoon na ku dee de allahu akbar ñu dem ba ay nit dee ndax constitution mbokk yi li tax nit di dee mooy islam diine waaye constitution warul tax nit dee de billaay ku fi dee ndax constitution boo demee di nga réccu boole yàlla ne lu tax ñu rey la nga naan ko théâtre sama jabarama rey ndax dañ doon seetaan théâtre kon dafa am ay mbir yoo xam ne ci société bu nekk mbir yooyu kenn du leen laal waaw kenn du ko laal du ñu bàyyi ni sax ngay xalaat ne da nga koy laal wa riddatu laysa bi mujarrad mawqifun aqli murtat ci loolu la bokk murtat nekkul ne maa moom sama xel xalaat naa neex na ma lii laa gis moo ma convaincre génn naa ci moo tax loi yi baaxul tey loi Sénégal permettre na ab julit mu murtat d'accord ngeen xam nga loi yi nangu na ab juif takk julit bu jigéen loi yi nangu na ab nasaraan takk julit bu jigéen loi moo tax baaxul arrangé wuñu day yàq sunu diine looloo tax ñu war a góor góorlu sunu kem talaayal kàttan di ko wax guddeeg bëccëg pour laïcité jóge fi donte ne nag gars yi bëgguñu ko ko wax wala neexul waaye nag su jógewul rek du nekk jullit moom moom bu yeboo ñu xam loolu mu nga te lii ni kenn ci ñun rëccu ci yaa ngi nii di góorgóorlu ëllëg ak si biir mun nañ convaincre sa doom mu murtat mun na nekk di yaa ngi nii di góorgóorlu ëllëg mun nañ convaincre sa mbokk wala sa jabar wala wala wala wala génne ko ci islaam wala ñu def loo ko leneen su ko defee ñu naan ya doomu diw la gis ngeen fekk environnement bi moo ko soppi kon du ñu bàyyi kenn mu naan maa moom sama xel lu ma neex def bal hiya tugayiru lil wala wa tabdil lil xiwaaya ki murtat dafa changé alliance fii la faroon allié ak ñoom mu jékki-jékki génn dem fee dafa changé bëgg-bëggam lii la bëggoon mu jékki-jékki changé ko dem fee dafa changé askano fi mu doon askano wa tahwil lil intima fii laa faroon fii laa bokkoon bokkatuma fi waa ji loolu la wax moo tax lislaam ne kii dañ koy rey ki murtat dafa génn ci xeet dem ci beneen xeet hmm? ki murtat dafa génn ci islaam dem ci ban xeet dem ci xeetu kéefér moo tax mu ngoog dafa génn ci dëkk dem ci beneen dëkk suñu bëggee xam nag àtte yi nanu gën a xuus dem ci téere yi nga xam ne ñooy jàngale fiq incha allah mbokk yi danañ fa am lu ñu gën a doy ci loo xam ne dafay jàngale attey ku murtad kon sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi loolu mooy lenn rek lu tuuti ci baat bi yàlla doon wax ne man yartadda minkum képp ku murtad ci yéen génn ci lislaam an diinihi mu bàyyi diineem borom bi nee na fa sawfa yati llahu bi qawmin ki murtad doon woor ba mu nekk mu ne wooratuma wala mu doon julli mu ne julleetuma mu nekkoon ci islam ba mu nekk mu ne nekkatuma ci na yëg ne lorul yàlla wàññiwul yàlla tus fa saw fa xal seet na yaati allahu yàlla indi bi qawmin ay nit yoo xam ne yuhibbuhum daf leen di bëgg wa yuhibbunahu dañ koy bëgg gis nga de moo tax soo murtadee wàññi woo yàlla tarfatal ayni yàlla nee na walillahi ala nnaas xijjul bayt man istataa ilayhi sabil wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin yàlla nee na nit ñi war nañoo aji màkk kenn ku nekk soo yàlla mënee mën loo war ngaa aji yàlla nee na nit ñi buñ demee baax na suñu lànkee yàlla doylu na leen waaw yàlla doylu na leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na asamaan yi juróom-ñaar ak malaaka ya fa nekk ak ña fa nekk ak suuf yi juróom-ñaar ak ñi fi nekk ak li fi nekk suñu àndoon ñoom ñëpp di jaamu yàlla nekk ci tawxiidu ibrahim alayhi salaam du yokk ci nguuru yàlla gi tarfatal ayn du yokk yàlla dara su ñëpp kàccoroon ba raw firawna du wàññi ci nguuru yàlla gi tarfatal ayn yàlla du jaamu giñ koy jaamu du yokk ko dërëm mooy giñ koy mooy wàññiwu ko tus bal sax yàlla ne na ku jaamu yàlla sa bopp nga jaamul yàlla in ahsantum ahsantum li anfusikum bu ngeen defee lu baax seen bopp ngeen ko defal waaw kon sunu borom nee na jaamu giñ koy jaamu du ko yokk mooy giñ koy mooy du ko wàññi tus nañu yëg ni aaya bii nga xam ne mooy yaa ayu alladina amanu man yartadda minkum an diini la taxoon mu wàcc mooy abu musa al ashari xam ngeen ne wax nañ sànq ngëneelu saxaaba yi ak waa yemen yooyu nga xam ne ñoom la ñuy wax al ashariyun alquran ñëw na wàcc wax ne dina am ñu murtad mu xabaar loo xam ne kumpa la loolu daal di am fa tamma tabqu ma axbara bihi loolu daal di mat sëkk la alquran wax ne dana am ñu murtad loolu moo lay wan ne alquran waxu yàlla la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn àdduna rek genn wàllu arab yëpp daal di murtad ñi bàyyi julli ñi bàyyi joxe azak abubakar moo takku di xeex ak ñoom di jëflante ak ñoom ba lenn ci mbooloo yi nga xam ne dañoo lànkoon joxe azak daal di dellusiwaat daal di tuubaat dellusiwaat ci islaam daal di rafetaatal seen islaam loolu abubakar moo ko def fa kaana abubakar wa ashaabu mimman wasafa allahu taala yuhibbunahum yuhibbuna allah wa yuhibbuhum allah aaya bi yàlla di wax ne subhanahu wa taala fa sawfa yati allahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna abubakar la ak sahaaba ya kon leen fii fa sawfa yati allahu yàlla dina indi bi qawmin ay nit yoo xam ne yuhibbuhum moom yàlla moo leen bëgg lii rek fen loo na sa si ay nit ñoo xam ne yàlla waxul ne ñoom ñoo bëgg yàlla ba pare yàlla bëgg ne leen yuhibbuhum moom yàlla moo leen bëggal boppam loolu ban garaat la mbokk yi ah bi qawmin su su nit murtadee su nit lànkee ne julliwuma wooruma nangam ak nangam yàlla nee na damay indi keneen koo xam ne man yàlla maa ko bëggal sama bopp allahu akbar moo tax ñi nekk fii di cappi cappi di jéem a wane banditisme ak reewandeeg caay caay wàññiwuñu yàlla dara lànk bañ a woor ak bañ a julleeg di féttéerlu koo ci waxal muy dangiiral di jéem a jaay ne maa tey li ma nekk lii ma def maa ko tey wàññiwuñu yàlla tarfatalayin benn yoo xam ngeen yoo sa xam ngeen yoo ku xam yoo fi ah yoo gi daa tag ci garab gi ci sept heures la ci tag ba six heures ci ngoon yoo bi di waaj a naaw daan ne garab gi guy gi garabu guy ne guy gi dëgëral de sa reen yi na dëgër jàppandul bu baax maa ngi waaj a naaw balaa ngay daanu guy gi ne ko bi ngay tag di yëguma ko woon ba neen nga fi tag ba neen nga tag yëguma ko de ba neen nga tag sama kaw mbokk yi ndax yoo mën na guy mën na mënal na guy dara ah dama leen di laaj ndax yoo am na lu mu mënal guy mooy ñii di cappi cappi fii di féetéerlu di wane ak kéeféer di wane ak reewande di wane ak ñàkk yar ci kanamu yàlla subhanahu wa taala sunu xamoon yàlla du kuy du kuy digle nit di lànk di ko def te di ko tey am xel seytaane nag mën na laa tarxiis loo ndeysaan nga def ko waaye nga ànd ak sa xel naan maa tey waaw ah yàlla nee na su ngeen lànkee bañ maa topp danaa indi ay nit ñoo xam ne man yàlla yuhibbuhum maa leen bëgg allahu akbar yal nañu yàlla boole ci ñuy waaye mbokk yi yal nañu yàlla bëgg tey ku xalifa yi bëggoon rek xalifa général yi ku ñu bëggoon kenn ci ñun nga yëg ne bëgg nañ la looy sentir ah mbokk yi sànq rek dama wax benn jigéen ne ko man de tey dama waroon dem benn dëkk ci dëkk yu mag yi ndax xalifa bi daf maa woolu rig ndaw si bëgg maa la ngaamu ma ne ko foo jëm mu ne dama lay siyaare yow yow mii yow doo réglé wala lool rek damay dem foofu rek ñu ne dañ lay siyaare te yëggagoo ñu bëgg la damay dem foofu rek yëggagoo ñu bëgg la kon soo fa demee ba kilifa gi wax ci rajo bi ne diw sama xarit la dama ko bëgg kon nit ñi nuñ la war a jàppee léegi nag jëlal président de la république tey bu génnoon journal officiel journaux yi ci ad Sénégal gi yëpp ñu bind ci rajo yeeg télé yëpp ñu jël benn décret président jël benn décret ne diw sama xarit la dama ko bëgg nga xam ne dañ ko wax sax journal télévisé say mbokk lu ñuy sentir soo amuloon kër di nga am soo amuloon oto boo amuloon passeport boo amuloon xaalis boo feebaroon loolu mënta dal rek gars yi dañ naan lii day dañ parce que kenn moo la bëgg ci biir réew mi kenn muy président kon mbokk yi ku yàlla bëgg bi qawmin yuhibbuhum nit ñoo xam ne yàlla moo leen bëggal boppam ba pare ñoom it wa yuhibbunahu Abubakar Saddiq nee na mosuma bëgg ndomba tànk lu dul bisu xaybar keroog ba yonent bi xëyee daan ne suba danaa jox jaasi ji waa joo xam ne yàllaa ko bëgg mu bëgg yàlla Abubakar nee na bëgguma ki mosuma bëgg ndomb tànk lu dul keroog nee na fajar gi jot ñu julli ba pare rek yonent bi saa salaam tàmbali xool sàppe bi ne nii ndeyjoor bi di dem di dem di ñëw di ñëw ba mu egsi ci man ma ne woy man la mu ne yonent bi romb ma mu ne ma ni nii topp bëtt yonent bi mu ne mu romb Omar Omar Omar def noonu ñu romb Ousmane Ousmane dem ba première sàppe bi jeex yonent bi dem deuxième sàppe di xool nii di xool ba deuxième sàppe jeex mu dem troisième ba jàkka ji jeex mu ne ana Seydina Aliyin ñu ne ko dafa wànnent ba mënta julli si ndax amul ku ko indi ba di du gis mu ne Bilal dama nga jëli ko Bilal jëli ko mu ñëw yonent bi jël benn pot daal di jàng tëfli ci ne ko sëlmul mu sëlmu ba di wér këng yonent bi jël jaasi ji ne ko yow la yow yaa bëgg yàlla yàlla bëgg la tey yow yaay ubbi dëkk bii di xaybar imaam Ali bi mu jëlee jaasi ji porte bi mu njëkk a song buddi ko ak loxoom def ko barrière bi xeex bi jeexee ba mu sànni porte bi téeméeri góor a ko yëkkati te benn loxo la ko téye woon téeméeri góor ñoo yëkkati bunt bi pour wéer ko allahu akbar keroog daa rey ba fas bi di xuus ci deret moom ngeen di gis fi fas yi ñuy fuddan seen tànk yi mu xonk ak seen geen yi loolu ngeen di gis fi nit ñi di ko def ku am fas bu weex fuddan tànk yi loolooy cosaan bi wala du ngeen koy gis léegi wàññeeku na sax ah ci dëkk yi léegi wàññeeku na fi da nga ko daan gis dañuy fuddan tànk yi ba ci óom yi fasu Seydina Aliin la woon moo rey ba xuus mel noonu deret xaybar yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko borom bi nee na nit ñooñu nga xam ne yàlla da leen a bëgg ñu bëgg ko azillatin alal mu'minin dañoo oyof ëmb yërmande ñeel way gëm yàlla gis nga jullit dafay ëmbal jullit mbokkam yërmande muhammadu rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar waaye ruhama baynahum xoolal mu ngi nii azillatin ala almuminin dañoo bëgg yàlla yàlla bëgg leen waaye dañoo wàcce seen bopp ci jullit yi duñu ngand ngand lu mukk ci kanamu jullit waaw duñu bonde mukk ci kanamu jullit di génne dënn di ko naan ñun la déedéet azilla alal mu'minin ariqa alayhim dañoo oyof ci ñoom jullit ñi waaye aizza alal kafirin dañoo tar ci kaw yéeféer yi allahu akbar lii moo doon islaam démb mooy jullit dafay bëgg mbokk jullitam daf koy yërëm ndax alquran loolu la wax loolu la alquran tagge yonent bi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminin raufun rahim yàlla nee na ca dëgg-dëgg ñëw na ci yéen yonent boo xam ne ci yéen la bàyyeekoo seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyeekul kaw asmaan daal di cëppeelu moo tax ñiy tagg tey fii seen kilifa yi ñi naan bi muy juddu dafa sol yére bi muy juddu dafa indaale benn lettre naka la nit di juddu indaale lettre ah naka la nit di juddoo di sol yére ah kii bokkul ci aadama bii ci beneen aadama la bokk non fan yii dañ am na benn benn journal l'observateur la xaw ma xaw ma populaire day def benn page boo xam ne day indi l'observateur day indi kenn indi kenn ci Sénégal lu ne ngay gis ay tooxi doona ay penalty yi loo xam ne dalay leer ku indi kaamil ma waat ne lii dara amu ci parce que mënul nekk yàlla dafa tëral règlement ci àdduna bi loo xam ne mooy sunan nit booy judd doo plongé mu jógee kaw asmaan wàcc doo génn ci biir géej gi doo tëll ci biir xeer yi doo génn ci biir suuf si da ngay am papa ak yaay juddu loolu mooy nature ah allah xoolal mu ne judduwul fi nit ñi di juddoo ci jumbax la génnee loolu dafa mën a nekk ci jumbax la génnee kan mooy ku génne ci jumbax sa yaay day dee loolu la tugalóor yi di wax ci El Hadji Omar kooku moom ñeme naa koo wax ndax sama maam la ñu ne bi muy juddu weeru koor la woon yaayam daa julli ñaari rakka ba pare fajar lan moo ci des boo jullee ñaari rakka pare nooy def ah boo jullee ñaari rakka fajar ba pare nooy def da ngay xaar julli suba bi ñu ne daa yaayam dafa julli ñaar rakka ba fajar ba pare balaa muy julli suba gi doom bi judd mu jóg julli suba bi jigéen boo am doom dina julli ñu ne omo tawa wolde badri fekke na xeexu badr El Hadj Omar dafa fekke badr du moom rek de fii kilifa yëpp la ñuy waxal loo xam ne dara amu ci dara amu ci ci jumbax la génnee jumbax waaw mais fa nit di juddu di génn ak jumbax lan mooy lan mooy lan mooy différence bi du yëpp ci yaram bi la nekk ah lan mooy différence bi kon fële moom ku fa juddoo baaxoo wala da ngaa manqué ah yonent yëpp fa lañ juddoo di yonent yi kon kii moo gën yonent yi am na yoo xam dañu ne bi ñuy judd dafay daale benn lettre lettre bi am turam ñu bind ko ci bëgguma wax tur bi nag kii daa juddu indi mbubu kii moom moom du sëy ak soxna yi saafara lay bind rek jox leen ñoom bu ay ndeysaan saafara kanko ko ayeju o windata o totta rewɓe ɓe njara tan gona debbireedi
léegi nee na amul xaar ku fa yéen am bu yaay yi gëmul ma daal koy yéen daal koy yéen. li la kon bu dee.
fekk mu ngi ci biir bi dañ ko ëmb nee na da koo boot.
da koo boot mënagul dox. te boo dégg loolu ma góor gi ma nekkaloon ma ne ko waaw mun na parce que moom xale laa naka def ba yenn maa ngi ama imaginé lii nan la mën a yéenee nit ki ah waaw li ma eh loolu kenn du ko def waaw parce que xam na ne du dëgg
Il faut raisonner.
noonu mënu nekk après ba ma màggee laa Nekk. même Seydina Ali sax da ngay dégg ñu ne euh, dafa rey gaynde fekk mu ngi ci biiru yaayam yaayam dem ci àll bi taxani benn gaynde ne tël Ali toj bënn biir bi rey gaynde gi duggaat loolu dafa mun nekk Soo tut tut tut. dafa am yoo xam ne mbokk jullit yi ab jullit na ci bàyyi xel am na yoo ko wax yoo xam ne munta nekk te du nekk yàlla subhanahu wa taala kenn dong la bindoon jaarul foofu ñeneen ñëpp foofu lañ jaar muy aadama ku dul aadama alayhi salaam ku ne fa nit ñi di juddoo fa nga juddoo ku mu mun a doon bu dee ci sunu sang sayyiduna muhammad dañ koo ëmb ni nuy ëmbe nit ñi ñu jur ko ni nit ñi di juddoo mu nàmp comme ni nit ñi di nàmpe raam waaw ni nit ñi mel noonu la mel du du du kéemtaan mu ngoog loola moo tax ñu ne wulida kama wulida al bashar wa aasha kama aasha al bashar walakin xayrun min al bashar moo gën ci nit ñi nag waaw qul innama ana basharum mislukum waaye yuha ilayya nit laa comme yéen waaye nag différence bi mooy man dañuy wax ak man yàlla mooy wax ak man foofu laa leen rawee foofoo tax duma seen moroom nag aywa mbokk yi mbir maa ngoog kon ab julit dafay dafay nooy ci ay mbokkam waaye dafay tar ci ay yéefir waaw loolu la yàlla tagge sahaaba yi mu ngi nii abubakar ak ñoom abu musa al ashari ak sahaaba yu màgg ya borom bi ne yujaahiduuna dañuy jihaad fi sabilillahi ci kawel diine yàlla wala yaxaafuuna duñu ragal lawmata laa'im yedd aji yedd duñu ragal kenn waaw tey ni àdduna bi ni julli ñi ragalee nekk ay yaafus nekk ay buqat koo wax ñu ne nangam nangam dañ lay lii dañ lay laa ba tax sax léegi wax yi sax dañ cee deltu ginnaaw loolu islaam xamu ko ab jullit waru ragal ci yàlla yedd aji yeddeel ibnu taymiya da daan wax ne su waaraatee waaraate bu dëgër gaay ne ko ibnu taymiya dan lay rey mu ne bu ngeen ma reyee ma dugg àjjana ñu ne ko ñu exilé la mu ne ma def tour du monde am xam-xam ñu ne ko ñu tëj la kaso mu ne ma dugg xalwa jaamu sama borom jeex na xanaa xamul ne am na borom xam-xam yoo xam ne sax ci kaso lañ mokkale alxuraan ndax amatuñu temps toog di jàng rek ak di julli di naafi la bàkkaar yu bëri yii mbedd mu bon mii ak yu araam yi nga xam ne buñ la dencee sax di nga mën a jaamu yàlla boog nga xéew nga eh, nga def itikaaf loolu ñu naan itikaaf nga mën a sellal sa borom mën a tuub xoola sayid xutbu sayidul islam dañ ko tëj kaso ci kaso bi la taalife benn téere tudde ko zilalul quran ci kaso la tafsirul quran xam ngeen ne kooku kaso boobu am na njëriñ ñu tëj la kaso nga tafsir quran ci biir kaso bi tudde ko zilalul quran allahu akbar kon ndeke même borom xam-xam yi seen gaa yi tëj yi ñu leen di tëj dañuy liggéeyal diine même ci biir kaso la ñuy nekk di liggéeyal diine xoola yusuf bañ ko tëjee lan la def daawa kaso bi bak ñëpp tuub alquran moo nettali aaya yi ya saahiba sijin a arbabun mutafarriquna xayr amillahu wahidul qahar kaso bi la yusuf saa def ko benn école ci école islam yi école tawhid yu jaahiduna dañuy jihaad fi sabilillahi ci yoonu yàlla ci anamu façon jihaad yi léegi nag borom xam-xam yi boo waxee ñu ne la jihaadu nafs waaye xeex ak sa bakkan jihaadu nafs jihaad la waaye jihaad bi yàlla di wax mooy jël ngànnaay yi jël jaasi dugg ci terrain bi jàppanteeg yéeféer yi wala yaxaafuna duñu ragal lawmata laa'im yedd aji yedd waaw jullit waru ragal ko yedd yenn saa yi nga gis ku ne soo gisee may wàcc sama loxo damay bañ paa bi quoi am ak paa bi problème waaw soo gisee sama muuraay bi ma dindi ko damay bañ sama jëkkër fase ma waaw ndeysaan soo gisee soo gisee soo gisee soo gisee soo gisee soo gisee rek ngay dégg waaye tax ngay def nangam non c'est que dangay bañ ku la yedd mbokk yi jaamu yàlla kenn warul bañ ku la ci yedd diine waroo cee ragal ku la yedd waroo cee bañ ku la xas waroo cee bañ ku la mere maadaama yaa ngi koy def li ajlillah ngir yàlla soo koy def ngir yàlla bul ut ku la mere bul ut ku la bañ bul ut ku la tàgg def ko ngir yàlla waaw benn waay nee na ma man su ma demee di julli ji jàkka ja rek day mel ne dama naan naa delluwaat sama kër julli ndax day wane ne maa ngi ngistal ma ne ko yow ma seytaane moo la gañe loolu du ngistal de julli ji jot nga war a dem jàkk julli ñu ne la toogal ci kër gi ndax nga nëbb say jaamu yàlla déedéet loolu du ngistal demal jàkk ja nga julli ji waaw ngistal leer na ngistal kay mooy ba nga yeggee jàkka ja nag war a taxaw julli foofu nag ngay xeexee ngistal nag waaw bu fekk mu ngi nit ñi toog nga traversé leen naan da ngay dem ci seen kanam pour wane wu xaaral gaa yaa ngi ni toog ma dóor fi ñaari ràkk yoo xam ne du ma seen moroom waaw nag ngay def attention wala nga ñëw fekk ñëpp toog ñëpp gàddu seen i kaamil di jàng ndànk dégg ñu baatu kenn nga ne xaaral ma yëkkati sama baat pour ñu xam ne ñii maa leen moom maa leen dàq Qur'an loolu mooy ngistal bi nga ñëwee jëlal téere jàng jeex na defal sa ñaari ràkk toogal defal say asgar loolu du ngistal wala bi ngay saraxe nga ni xaaral ma génne xaalis ba ñu xam ne man 10 000 laa joxe nga génne ko ñëpp gis ko yemoo sax ci nit ñi nañ ko gis waaye nga wane bindal sama tur maa ko joxe mosoon naa fekk benn daayira boo xam ne maire bi daf ñoo yoral ay weer école fayuñu de ay weer yu dul jeex fayuñu mu am daayira ba pare ñëw invité ñu ñu ñëw ci daayira bi ma gis ko mu génne xaalis bëri ay ay 10 000 yu bëri di di ko jox jàngkat yi ba pare yemu ci de mu ne mu ne wax leen ci rajo bi wax leen ci rajo bi li ma joxe wax leen ko eh nañ wax ñii nañ wax li ma joxe nañ ko wax waa ji ne maire bi joxe na nangam ma ne aka neexoon mu jox ñu ci ndax ñun ay weer a ngi ni fayuñ te ñu ngi jàngal doomam jàngal ñetti doomam fayul mu ñëw fi tey di puukare kon kooku xam nga ne am na ko mu ngoog xam na benn waaye boo xam dañoo dàq doomam mu ne xanaa yéen jàngalewu leen islam ngeen di wax islam ba pare ngeen dàq xale yi kaay ndeysaan ay waa islam waruñoo lekk waruñoo naan ñun ah ndeysaan leen islam ba pare ngeen di dàqaate am na benn waaye boo xam ne suñu école ñi fayul moom moo leen di dàq fan yi daa dàq benn ay xale yaay xale yi ñëw ne ko yow asalaamaaleykum mu ne mu ne yow lu tax sa dund nga dàq nga tànn ci dàqaate yow sa dund daaxaate nga ci tànn yow waa ji ne ko waaw yow yow yow sa dund daaxaate mu ne waa ji ne ko waaw nekk fa di discuter ne ko waaw mu fayee ba pare waa ji ne ko jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant école bi amel na la njukkal ndax di nga tax maître yi mën a xëy suba jàngale ah mbokk yi maître yi dañ leen di fay di dañuy fay ustaas yi di dañuy fay kër gi di dañuy fay ndox di dañuy fay courant di dañuy fay téléphone ah léegi nag loolu yëpp yow boo nee doo indi li ngay war a joxe ku nekk ne islam la islam la waaw loolu dana doy waar di xoolal fi mu nekk daan xam nga dañ doon conférence semaine bi nga gis ku bañ a fay ñëw jëndal boppam tisi jëndal doomam tisi ci conférence bi de waaye sa waay moom moo moo moo mat boo ñëwee rek ne jaay ma tisi bu yëpp nga jox xaalis bi mu ne la lii dugal naa ko ci weeru sàngam bindal bindal la russi jàpp njàmbur allahu akbar waay waay Sénégal a neex rek yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu ñu sori ko ab julit warta ragal ku ko yedd su fekkee ci dëgg nga nekk waaw yow lu tax ngay def nii nga ni yàllaa ko wax yonent wala yaxaafuuna lawmata laa'im borom bi nee na lii nag zalika lii fadlullahi xéewalu yàlla la allahu akbar nga nga ñeme dëgg nga ñeme dund dëgg ñeme wax dëgg bëgg a dund dëgg dee ci zalika fadlullahi loolu xéewalu yàlla la yuutihi yàlla moo koy jox man yasaaw ku ko neex wallahu yàlla waasiun alim ku yaatu la moom yàlla alim ku xam la allahu akbar wallahu waasiun alim yàlla dafa yaatu waaye yàlla alim lépp la xam subhanahu wa taala sunu borom allah waasiul fadli ay xéewalam dañoo yaatu ba lépp a ciy jot alimun bi man yastahiquhu moom yàlla xéewalam yooyu yaatu moom yàlla moo xam ñi mu koy jox mu jox leen ko da ngay du- dem ci àll bi gis xéewal yàlla yàlla di xéewal picc yi xéewalal weñ yi xéewalal xéewalal xéewalal foo dugg gis xéewalu yàlla nga gis kuy lekk ci xéewalu yàlla ku ciy dund wallaahi da ngay ubbi sax foos foos di ngàcc foos bi nga fekk fa mbindeef moo xam ne mu ngay dund ci xéewalu yàlla yi te mu ngi dund mu ngi lekk mu ngi naan wala nga gas suuf si ay kilomètres ci biir nga gis benn mbindeefu yàlla bu fa génn waa kii lu mu doon lekk kii lu muy naan nga dugg ci biir géej gis gis fa mbindeef moo xam ne bi mu génnee yow ci sa bopp tuuti nga dee ndax ni nga tiitee nga fekk ko muy dund xéewalu yàlla koo xam ne kilo ceeb du ko suur kilo mburu du ko suur yàlla am na mbindeef yoo xam ne kilo du leen suur de ah liibar du leen suur ah yow lu lay suur yow kan ci ñun fi moo mën a lekk kilo ceeb ba mu jeex kilo ceeb nga ndogoo ko kan ci ñun kilo yàpp mënoo ko jeexal di nga ko jege am na benn séeréer nee na dina ko jege mais du ko jeexal ah ok léegi nag xoolal mbindeef yoo xam ne sawaay la hawla wala quwwata illa billah allahu akbar li ñuy lekk loolu tey bu fekkoon ne ñii dañuy liggéey pour am loolu duñ dem waaye xoolal yàllaa ngi leen koy wërsëgal ñu koy lekk wala mu ne wallahu waasiun alim yàlla dafa yaatu de moo xam yaatuwaayam xéewala mi ni mu yaatoo noonu la koy joxee te ñu ko neex la koy jox moom yàlla sunu borom subhanahu wa taala nee na na ngeen yëg ne yéen jullit ñi innama waliyukumullah yàlla mooy seen péete gis ngeen démb lu ñu doon jàng péete mu feddaliwaat ko tey innama waliyukumullah yàlla ngeen war a faral yàlla ngeen war a aliyeel wa rasuluhu ak yonentam wallazina amanu ngeen aliyé ak ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla kon gis nga jullit ñett ñi rek nga war a àndal yàlla yonentam way gëm yàlla yi yow jullit nag léegi boo bàyyee yàlla bàyyi yonent bàyyi way gëm yàlla yi dem fari feneen mooy murtad nga génn nga ci lislaam luy sa atte mooy sànq atte yi ñu doon wax mooy dañ laa war a rey innama waliyukumullah lii ñépp ko war a xam yàlla ngeen war a faral yàlla ngeen war a aliyeel yàlla ngeen war a péeteel ak yonentam walladina amanu ak way gëm yàlla yi way gëm yàlla yi ñooy ñan gis nga sunu borom saa yi waxee ñi gëm yàlla du bàyyi noonu de bi mu waxee zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin dafa wax ñan ñooy muttaqin allazina yuminuuna bilgayb wa yuqimuuna alsalaa wa mimma razaqnahum yunfiquun wallazina yuminuuna bima ba mu jeex chaque jour ci alquran yàlla sunu waxee way gëm yi daf ñuy wax ñooy ñan xoolal fii mu ne allazina amanu way gëm yi allazina mooy ñi nga xam ne yuqiimuuna salaata dañuy taxawal julli wa yu'tuuna zakaata dañuy joxe azaka wa hum ñoom foo leen fekk raaki'uun way rukool yàlla lañ allahu akbar ñii ñooy way gëm yi ginnaaw ba ñu fareg yàlla farag yonentam farag way gëm yàlla yi dañuy taxawal julli léegi soo bàyyee julli nag ndax yow ci nga bokk soo bàyyee joxe azak ndax yow ci nga bokk soo lankee ne doo rukool yàlla di rukool ñeneen ku jóg nga raam ku jóg nga ku jóg nga ku jóg nga te doo ko defal yàlla di nga gis fii ci biir dëkk bi ñoo xam ne ay mbir yoo xam ne duñ ko defal yàlla ñu koy defal seen morom loolu da nga koy gis fi du jeex ñoo xam ne lii ñuy def yàlla moo ko moom yàlla dong moo ko yeyoo nga gis ñu bàyyi yàlla daf ko defal nit loolu daganut moo tax ñu war a delloo si waat suñu xel yi xool suñu diine li mu nu sant ñu def lim nu tere ñu bàyyi jullit bu bëggee texe jullit bu bëggee am taraanga yàlla am kontanteem àdduna ak àllaaxira day xool li ko yàlla sant mu nekk ci waaw munoo nekk ci santaane yàlla nag te jàngoo alxuraan alxuraan bu leeree ci yow rek sa pas-pas day leer day wér waaye alxuraan bi bu leerul ci yow rek daa am beneen problème moo tax nga gis ñu bëri ndeysaan nekk ci mboy mboy gi ci tuus bi xamuñu li yàlla wax xamuñu li yonent wax waaw ñoom dañu nekk ci mbedd mi rek di tambar lambari di lambar lambari lu ñëw lu ñëw ñu nekk ci lu ñëw ñu lekk ci lu ñu dégg aussi gëm ko am nay kasetu waxtaan yoo xam ne képp ku jàngul amoo xam-xam ci islam kaset yooyu da lay yóbbu te yéen a ngi dégg kaset yi am na unique rajo yoo xam ne ak télé yoo xam ne loolu rek la ñuy teg moo tax boo jegewul alxuraan da ngay alku da ngay sànk xam nga léegi li kii wax léegi léegi kii bi muy judd ci jumbax bi la jaar fin polongé ñëw Hmm? kan lañ fi parasité suñ lay suñ lay suñ lay jógee kaw sooy suñ lay sànni nga jógee kaw asamaan di wadd ci suuf nuñ lay wax ne kooku luñ ko def dañ ko sànni para kan la yàlla yàlla sànni para mu ñëw ban yonent ngeen dégg yàlla da koo sànni para ah yonent yi ñoo gën ci nit ñi te nit nit ñi juddoo leen juddoo yonent yi saxaaba yi ñoo ci gën nit ñi ñi juddoo leen juddoo looloo tax alxuraan moo nuy dëgëral alxuraan mooy tax ñu xam fu ñu teg sunu tànk alxuraan mooy tax ñu xam ndax ci dëgg la nekk wala nekk ñu ci dëgg kon sunu borom nee na yàlla subhanahu wa taala moom lan war a faral ak yonentam ak ñan mu ne walladina amanu dañoo war a far aussi ak ñi gëm yàlla ñi ñi gëm yàlla mooy ñan alladina yuqimuna salaa mooy ñiy taxawal julli julli moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla yëpp ci suuf lañ ko joxe sayduna muhammad amma julli ci kaw asamaan lañ ko joxe yonent bi leelatul isra wal miraaj la yàlla jox yonent bi julli moo tax julli boroom xam-xam yi nee nañ buñ koy melal nu mu mel ci nit mooy bopp nit dina ñàkk loxo dox hmm? d'accord nit dina ñàkk nopp dox nit dina ñàkk bët dox nit dana ñàkk tànk dox ndax mës ngeen gis nit ku ñàkk bopp di dox ah bopp buy dox rek di dem dem ñu ne ana yaram bi ñu ne non non kii amul kii mës ngeen ko gis wala nit kuy dox amul bopp jëmm ji rek yaram bi bopp bokk ci ah gaa yi nee nañ benn bopp daa dugg ci bitig ne day jënd ci naar bi ne ko jaay ma mu ne ko yaa xëyti ane sa taxawaay ane sa taxawaay jar na laaj bopp kese buy wax war na ko laaj ane taxawaay bi waaw mu ne ko yaa xëyti ane sa taxawaay wax na dëgg ndax bopp kese du dox bopp nag ci islaam mooy julli moo tax yonent bi ne man aqaamaha faqad aqaama diin ku taxawal julli rek taxawal nga diini wa man tarakaha faqad xadama diin ku bàyyi julli màbb nga diine Sénégal ngay gis diine bu amul julli hmm? diine bu amul julli ñii de ci diine sàngam lañ nekk mais ñoom duñ julli te ay jullit lañ bi ma njëkkee aji ma dajeek ay naar ndeysaan ñuy waxtaan ma koy wax fi ñu dëkk ah ñuy waxtaan di wax ba ma ba ma koy leeralal nag li nekk Sénégal ma ne ko ñun am nañ jullit yu dul julli mu ne ma ragalal yàlla muslimun laa yusalli ma ne ko wallahi indana muslimuna laa yusalluun wala yasuumuun wala yahujjuun wa hum muslimuun mu yëngal bopp bi mu ne ma loolu munta nekk ba léegi ni ma gëmuma mu ne ma munta nekk ma ne ko ah munta nekk de waaye ñun am nañ ko am nañ ay jullit yu dul julli am nañ ay jullit yu dul woor benn benn waay laajoon nag mu ne waaw man damaa gis fii ñu dul julli te buñ dee ñu julli leen te duñ jul duñ julli buñ dee ñu leen di jullee di leen suul ci armée lu julli di di leen ñaanal di leen dëjal te duñ julli ngeen ne loolu jaaduwut ku dul julli kenn waru laa jullee am na benn téere bu Useymin bind tuddee ko hukmu taariku salaa at tey ku bàyyi julli ku dul julli daganul sax toogandool ci bool di lekk ak moom daganut waxuma laak nag ngay dëkk ak moom ci kër daganul may jabar daganul may jëkkër ku dul julli boo dee kenn warulaa donn waroo donn kenn soo dee waruñu laa sang waruñu laa sang waruñu laa jullee waruñu laa suul ci armeelu julliti du lu ndaw de julli du lu ndaw hmm? lan moo leen di wane du lu ndaw fan lañ ko joxee yonent bi ah, lan la yàlla wax ci julli xoola koor boo feebaree ñu ne la wàcc na la dem màkk boo amul azaka boo amul kan la julli wàcc boo feebaree sax ñu ne la jullil mënumaa taxaw ñu ne la toogal mënumaa toog ñu ne la tëddal mënumaa yëkkati samay loxo ñu ne la julleel sa xel ah waaw waaw waaw waaw waaw waaw gis nga allahu akbar gis nga dund li dund li gis nga non mu gis mu gis gisul dara gis dafa tànn lu ko neex rek wallahi gisul dara daa tànn lu ko neex rek wallahi alazim wala lii rek wala lool rek moo tax ma wax leen sànq ne euh, bu nu góorgóorluwul sànq loolu laa lay wax ne nañ jël sa doom wala ñu jël doomu jaamur wala ñu jël keneen waaw de détourné leen ku mel noonu nag léegi ci biir kër gi xam nga lu muy ut mbooloo waaw mbooloo la ci biir kër gi ñeneen ñu mel ne moom duñ julli bàyyi julli comme moom waaw man loolu duma ko sax négocier amoon naay jarbaat yoo xamante ne li tax ma bàyyi julli ji jàkk fajar ñoom ñoo tax fajar ci dama yee ñëpp tout le monde waaw yi dajji buntu yi këran këng jóg fii ku fii fanaan da ngay julli fajar ku mu neexul bul fanaan ay grand la ñoom ñëpp waaw di diine bi foog ngeen jihaat gis nga kooku nu ko bàyyee ci kër gi xale yëpp lay ratise dugal leen ci waaw te dañuy bayaan nag yéen leen di gis noonu dañuy waaraate de dañuy ñëw bëgg nit ñi lekk ñoom ñu ne ñoom sax ñoo tane sunni di te yéen a ngi nekk sunni sax doo waaraate ci kër waaye ñoom dañuy bàyyi julli ba pare ñëw di waaraate pour nga bàyyi julli. ñoo la ko dàq. gis nga. gis nga danañ fexe ba tuur la lëndëm gi. allahu akbar allahu akbar waaw gis naa yàlla day gis yàlla waaw acc gis waaw waaw allahu akbar mu ne lan gis nga ah déet xam nga gis naa yàlla tontu bi mooy nu mel rek waaw li waa ji waxoon amoon nañ sunu benn waa ji fii fii fii la dëkk doomam dafa xëy ne ko gis naa yàlla mu ne ko gis nga gis nga yàlla mu ne waaw mu dem ut bale taxaw dëkk koo fëgg ba bale bi damm bi nit ñi yéexee xale bi xaw na dem alaaxira am na ci moom ay juróom yoo xam ne ngir yi lu mu def lu mu def mu ne man ma nekk plombier mu gis yàlla waxu ko sama problème loolu laa ko doon dóore moom xam na ne bala ñuy lekk fii dañu am problème ah mu dem ba gis yàlla waxu ko sama problème kii daf ma yab ñëpp ñi ñëwoon àtte xoolal dañoo daanu ci suuf di ree kooku wax na dëgg wala waxul dëgg di nga gëm yàlla ba pare toog fii di nga gis yàlla toog fii di lekk keccax xanaa Macky Sall sax boo ko gisee ay fan sa sa plat war na changé ah gars yi ah Macky Sall boo ko gisee laa ay fan war nga lekk yàpp tuuti sa sa- war nga sol lu set tuuti waxuma laa da nga gis yàlla ñi dañuy nax rek yooyu nag moo fi bëri ci dëkk bi bàyyiloo nit ñi diine di leen dugal ci kenn xamul ku ci dof dof lu nag say mbokk ak say doom ci loolu lañ leen di dugal moo tax kër gu ñu nekk rek bu yeboo borom kër ga def ndànk da ngay xëy rek sa njaboot yëpp ñu dugal leen ci
Sall am na benn kii ku mën a waxtaan moom li ñu ko su ko bi ñu ko kii woon mooy waaye dañ ko laa ilaha illa allah illallah mooy yàlla.
waaw mooy mooy tafsir bu bon bi ñuy tafsir la ilaha illa allah
Dafa jaxasoo di bokk waa ji.
wallahi borom bi nee na wa man yatawalla allah képp ku farag yàlla gis ngeen xam nga wax nañuy war a faral innama waliyukumullah mu del siwaat wa man yatawalla allah képp ku far ak yàlla wa rasulahu ak yonentam wallazina amanu nga farag way gëm yàlla yi na nga yëg ne fa inna hizballahi humul ghalibuna parti yàlla ñooy gañe leer na nañ wa man yatawalla allah képp ku fal ak yàlla képp ku ali ak yàlla ah képp ku tànn péete yàlla wa rasulahu ak yonent yàlla bi wallazina amanu nga tànn péete way gëm yàlla yi na nga yëg ne parti boobu ñooy gañe fa inna hizballahi humul ghalibun parti yàlla boobu ñooy gañe allahumma ij'alna min hizbillah fa inna hizballahi humul ghalibun allahumma ijalna min jundik fa inna jundaka humul ghalibun yal nañu yàlla def ci ay parteem yal na yàlla def ci ay soldaaram kon loolu mooy darsa tey mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na ay laaj